dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér abu ni leen ngir dara bañ leen raw. ñu daal di woy ak yéen ba tey ci xibaar yi mbokk internet info 221 ginnaaw nag li nga xamante ne jamono ji wàccee élection yi bari na ci coow kenn ku ne rekk yaa ngi xalaatee di jàpp rek ne ñi di waa conseil constitutionnel ak seeni liggéey. rawatina nag leneen loo ci xam ne rek bokk na ca ñi di jot na média nag jot na ñu fësal ab publication boo xamante ne rek daf cay àddu jëm rek nag ci naka la ñuy def ngir réhabiliter droit ak défenser état de justice fii ci Sénégal justice boo xamante ne dafay indépendante waaye tamit bu ñu sukkandikoo ci professeur Sidi Alpha Ndiaye moom moo bind nag bile ci nekk ca conseil constitutionnel temporalité dem ci wàllum politique fii ci Sénégal jamono ji dafa rythmé ci wàllum manipulation administrative ak droit électoral ginnaaw ginnaaw ñu mun a annuler au libre participation élection présidentielle yi ñu dëggmal loolu nekk nekk ab fraude de démocratie boo xamante ne état de droit dafay organiser ci installation waaye tamit ci représentation populaire idée la selon laquelle war nañu recevoir candidat indépendant yi dépendant wala ci ay conditions yi extérieures ci loi lu mu sukkandiku ci euh, droit électoral lépp nag jëm ci électeur ak ki nga xamante ne mooy fal ki nga xam ne moom la bëgg précus wala parrainage mooy seeni âge seeni at ak seeni nationalité parrainage législateur bu Sénégal nag depuis 2018 nag jot na consacré lu jëm ci liaison di euh, diggante éligibilité ak qualité électeur ngir rep ba élection yi jaat ci yoon waaye tamit ñu gis ne loolu yëpp laataa muy am faw rek nag ñu nekk électeur ba noppi nekk ku éligible bu ñu sukkandikoo nag ci article 57 1 bu code électoral bàyyiwuñu kenn koo xamante ne rek dañ la interpréter ci wàllu wóole bu ñu disposé nag lu ci sénégalais électeur bi wala sax koo xam dafa am acte de candidature wala éligible sous réserve de condition d'âge ak lu jëm ci wàllum at waaye tamit incapacité ak éligibilité bu ñu prévoir ci article waaye tamit ci loi bi ci noonu nag amul benn candidature boo xamante ni monsieur ko Sonko dellusiwaat nañ ci mbiru Bassirou Diomaye Faye jot nañu remplir nag exigence yëpp yi nga xamante ne dafa légal ngir ñu mën a valider seen i candidature ci noonu sax seen candidature conseil constitutionnel jot na woon rek. ne ci fonction agriculation régulation jot na accepté nag seen i candidature waaye la ca des ba tey Ousmane Sonko moom jotagul nag fiche de parrainage ak reçu caution bi constitutionnel ak promouvoir ñoo war a promouvoir lu jëm ci démocratie fii ci Sénégal ci ay quelques observateurs ñoom jot nañu gis nag éligibilité contestable bu Ousmane Sonko dafa war a bokk ginnaaw ba ñu annulé nag radiation ci liste électorale yooyu Ousmane Sonko ca tribunal instance or classe bu Ndakaaru loolu mi ngi nekkoon fukki fan ak ñeent ci décembre loolu nag conséquence la ngir ñu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ci ni mu gën a gaawee fichier électoral tribunal instance tamit nag bu Ziguinchor jotoon na daal di fësal jëm ci article 307 nag waaye tamit arrestation Ousmane Sonko jot nañ ko anéantir ci droit ak lana mel jugement chambre criminelle ak tribunal grande instance bu ndakaaru benn fan ci mille juin 2023 condamné nañ ko nag ci wàllum délit corruption ak de la jeunesse décision boobe nag chambre de décision bu chambre criminelle jot na ci àddu ordonnance juridique situation contumace ak juridiquement lu jëm ci wàll woowee loolee nag nekk loo xamante ne tey jii rek buñ ko ma Ousmane Sonko kenn mënu ko tere mu bokk ci liste électorale yi article 47 bu 4 code électoral nag article 336 ak 74 2 bu loi organique jot na nag àddu ci lu nu mel ba tey nag ci wàllum xibaar rek dañ ci àddu jëm ci wàccaay élection yi xam naa ne kenn du ko lam-laame ak jamono ji nga xamante ni lépp nag tey ji sax la conseil constitutionnel fas yéene nag dàkkal dépôt candidature yu dossier loole nag nekk loo xamante ne gis-gis la Pape Alé nag daal dina si yëkkati ay kàddu moom mile défi bu démocratie électorale fii ci Sénégal suñu démocratie nag souvent dañ leen di considérer comme joie de société maanaam ñoo xamante ne askan wi lañ fi nekkal moderne bu reposé ci pàcc bu mag ci wàllum sincérité ak transparence élection fii ci Sénégal seeni principe nag lenn rek la wala doon mooy mettre ñëpp ci épreuve yi indi fi ay leeral préoccupation croissante boo xamante ne direction générale des élections dañoo bañ seen influence ak processus électoral rawatina nag commission électorale nationale autonome du Sénat bu ñu sukkandikoo ci atum 1997 création ONAL du presse moo wuutu lii di Sénat moo daal di moo Sénat moo ko daal di remplacer jotoon nañ accepté ci attente waaye tamit élevé ah, ci bu fekkee ne rôle crucial la ci wàllum gestion partielle impartiale ci élection ci noonu événement yi nga xamante ne jot na am rawatina nag mise en bu DG yi ya ci atum 1998 ci sous tutelle du ministère bu ñu dénk wàllum biir réew mi mu seme woon dut nag ba wàllum jëm autonomie ci wàllum Sénat Abdou Diouf nag jotoon na ni nommé proche collaborateur Cheikh Gueye ci bopp direction générale des élections doté woon na sax ci entité moyenne de pouvoir correction waaye itam nekk influence boo xam ne Sénat dina conduite opération électorale rivalité rivalité lañ mën a wax ci apparente diggante Sénat ak ñi di direction générale soulevé woon na nag ay questions incrédibilité ci processus électoral malgré nag pouvoir boobee jot nañu gis ne Sénat jot na retrouver absutren ci connexion ak DGI compromettre na efficacité waaye tamit gis nañ ba tey ji dafa desandi seen i liggéey bi nga xamante ne nag ñii di direction générale def nañ ko illustré na seen lank systématique ne duñu jox Ousmane Sonko fiche de parrainage bi tel candidat ku mel ni indi woon tamit ay coow nit ñi tiitoon jàpp na rek lu nu mel loolee nag dafa mel conseil constitutionnel en tant que nag ki nga xamante ne moo war a garanti lépp lu jëm ci constitutionnalité constitutionnalité waaye tamit règlement dafa fas yéene nag examiner ci lu jege développement inquiétant puis jurisprudence antérieure ak communiqué juridique ngir boole ñëpp nag ñu dem jàkkaarloog atteinte potentielle ak loole processus conclusion bi nag Pape Alé Niang jàpp rek ni waa commission bi ak DG yi lu ñu def teguñ ko fenn ci yoon dañ war a jox Ousmane Sonko li nga xamante ne loolu lay yelloo ginnaaw justice moo ko jox dëgg jamono ji nag Ousmane Sonko daanaka sax déposé na candidature am dossier waaye ba tey mënagul jot nag lu jëm ci fiche de parenage bi ak caution bi loolee nekk loo xamante ne ba tey jii dafay gën a naka delloo ginnaaw suñu démocratie waaye itam di wone rek ni nguurum Sénégal lépp moo ci teg loxo ba tax nag jaaxa yi jafe yi daal di am Pape Alé Niang moo yëkkati yi le kàddu yéen ak xibaar yi jëm ci kàddu yu duppee kii di Ndongo euh, Ndiaye moo daal di fësal ne na bu fekkente ne Ousmane Sonko dem na ci élection présidentielle yi dina gagné ci nu mu gën a gaawee dina doon président de la République Macky Sall euh, kii nga xamante ne nag mooy ex ministre conseiller bu Macky Sall di Ndongo Ndiaye candidat la moom it ca élection présidentielle bu 2024 jot na prononcé wu nag ci actualité politique sénégalaise bi mi ngi invité nag ginnaaw bañ ko invité ci site bi di sans limite ci moom nee na bu fekkee Ousmane Sonko euh, dem na présidentielle bu 2024 10 heures rek dinaan doon président de la république fii ci Sénégal noonee bu fekkente na dina tax ñu libéré ko waaye tamit ñu amal élection yi ba noppi fermer bureau yëpp de vote yi mu devient président de la république Macky Sall ndax loolee ab réalité la bu ñu doon politique fii ci Sénégal Ndongo Ndiaye nag yokk na ci nee na Macky Sall nag président de la république Macky Sall moom la waaye nag Ousmane Sonko phénomène la boo xamante ni dafa exister ci wàllum politique réelle fii ci Sénégal réalité politique la boo xamante ni jeunes gëm gëm ko ci li nga xamante ne rek moom lay def ci noonee candidat déclaré na tamit ne euh, bu fekk mu ngi wootee autorité yi ak personnalité yi nekk fii ci réew mi ñu dal di aborder farce ne rek ba ñu amal nag élection yu dal waaye tamit yu transparent jaarale ko ci jàmm dialogue boo wax xam ne war na am diggante nag way politique yi ñu reporté gile élection ñu doon waxtaan loolee du mën a am waaye tamit dina tax Sénégal euh, fekk siwaat nag jàmm ak salaam bi nga xamante ni moom moomee lañ ko xamee ñu wax nag ci suspense intense bu fo ñaar fukki fan ak juróom ñett ñett ci weeru décembre ah, ci la ñu déterminer sooru candidat yi après su élection yi nag jot na de ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février loole doon benn bés boo xam ne kenn du ko fàtte ren ñu conseil constitutionnel moom mooy yor nag ah, buum bu mujj bi droite prétendant fas yéene candidat yi addu seeni mbir ba xam ndax ñoom dinañ jëm wala duñ jëm niki démb nag juróom-ñaari sages ah, jot nañu dalal mandataire yëpp yi nga xamante ne mooy candidat yi déposé maanaam ku ni mandataire Anta Babacar Ngom Diomaye Faye ak Mimi Touré loolu yàq bokk na ci euh, seen émissaires yi ñu déposé seen i documents yi war ngir ñu mën leen a dalal euh, xamal ne seen i candidat champion respectif noonu lañ ko tuddee conseil constitutionnel fixé nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci wéeri décembre comme date cruciale boo xamante ni euh, ci la ñu amal ci au sort ci traitement dossier ba xam candidat yi nga xamante ne moom la ñu tënk na ñoom dem ak ñi nga xamante ne duñu dem mu doon étape bu doy waar ndaxte ak candidat donte nag seen i dossier ma nga fa dina am ñoo xamante ni dem nag ci élection 2024 yi